asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi jamono ji yéen ñi ñuy bàyyi xel ñi ngi leen di nuyu baax a baax di leen ziar te di leen joxaat seen wàccuwaay yéen ngi nii di jàkkaarloog ñi nga xam ni ñoo di waa Bawal aar du kuréel gi nga xam ni moo lëkkale mboolem artiste bu nekk diwaanu Bawal ak tamit ñi nga xam ni ay bonne volonté lan maanaam ñiy dimbali ay doomi aadama ñi nga xam ni yeyoo nañ ko te yàlla rek a tax Bawal aar bànqaas bi ëpp solo mu di social social googule mënu tax a jug ànd ak yenn ci membre Baol Aar ñu ñëw seet si koo xam ni sunu mbokk la seet koo xam ni yàlla def ko teg nattu koo xam ni tawat daf ko dab wax dëgg yàlla mu nekk tawat bu metti tawat boo xam ni day yooyu ndimbal Baol Aar mi nga xam ni social rek moo ko tax a jug ñu ni dañuy daldi jug ànd ak moom wan ko doomu aadama yi nga xam ni dimbali ay doomu aadama rek moo leen tax a jug ñu gis sunu jàmbaar ji leen ñu nak ñu tàmbale ci cadre yi nga xam ci ni modi président di Cheikh Abdou Nougoum mu and ak mbooleem ko nek ci Baol Aar mbokk dina bi len yo ziyaar la dañ lay resew tur bàyyi leen mënu ñi nga xam ci ñoy bàyyi xel de jamono ji tour wi Cheikh Samba gay Cheikh Samba ah euh sama serigne tawat gi le kan la dal ak ban xer tawat la waaw jamonoy magal bi mo mu daanele mu tane mu tane waaw da nga nekkon doon liggéey waaw balaa nekkon di liggéey ban feebar la feebar jalis la jalis la. waaw. Ah. Hmm, moom faju gi nag moom nan lay demee. faju moom métti na trop. Hmm. paase ak ordonnance la dafa seer. paase ak ordonnance. waaw ah, dafa seer trop. naka lay demee maanaam nag ngay fajoo. sa sa sa semaine bi naa def deux deux jours. maanaam ci biir semaine bi ci def ñaari yoon. waaw mais instant yii amagu ma place moom. amagu ma place damay may loolu ay cinq jours yooyu dama ko def affaire damay sonal. da lay waaw maanaam je euh, foog nga def séance te booy def séance euh, semaine bi juróom-ñaari fan da ko def ñaari yoon. ñaari yoon waaw. Euh, benn yoon bu ne ñaata ngay fay ngir def ko. soixante cinq mille. soixante xeetu liggéey nga ndax am na loo xam ko. waaw ak ordonnance ak analyse yi. seet trop. def na lépp daanaka. waaw. tey nag nga yooyu ndimbal lool. waaw. Mm-hmm. sañoon daa ngi dimbali ma jël ma en charge ma faju si wala ma génn réew ma faju fii nii. waaw dimbal te jàpp nga ni itam buñ la moom hmm. koo xamante ne bëgg rek. Hmm. jël ma en charge a jafe trop. bëggoon faju sax da ngay ñaan ñu may la ngir nga doog a mën a faju. waaw te te daanaka. jaanatu laa ñaan ak 28. jaanatu te ñaari hôpital yooyu doon bu la mayee daanaka kon bu la mayee ñaari séance. loolu la nga may ko da ngay toog war nga dem fay soixante cinq mille. Hmm, ndeysaan. chaque deux chaque deux kenn mënu ko. noonu lay demee. waaw noonu lay demee chaque deux jours soixante cinq mille. Hmm. ndax euh, yaa ngi ban dëkk ban dëkk nga bàyyi ko. waaw Daaru Karim laa si wetu hôpital bees. si ndax eh, jot nga manam ay dimbal yo xam ne jot nañoo accès wala boog dimbal yi nga xam ne ñëwoon na daanaka lu ci ëpp ko na. waaw ah, ah, juróomi maa dimbali sax waaye daanaka lépp. ci hmm. yor na sax ay pass deug la ay science. sha allah mbokk yi mi ngoog yaakaar na ñoko ko mu nek eh, ko xam ne wax dëgg yalla ku yeyoo dimbal la mu di Serigne Cheikh di suñu mbokk ndax mbokk ñëpp la ko xam ne mënoon na da nap àndoon na kàttanam te yàlla teg ndax nii nga xam ne moom la mel su ne ma leen photo bi nga xam ni laataa lii di ko dal ni mu meloon ngeen xam ne yàlla kenn la tey tam yàlla rek moo ko teg natt natt bi nag jomb na ñun ñëpp ndax nekk na tawat boo xam ne kenn ku nekk mën naa dal ci sa kaw tey jii nag mu jaaxle xamul fenn fu mu jëm waaye nag mu ànd ak ngëm yàlla ginnaaw bi ma àndee ak ngëm yàlla mu ni damay taxaw jàkkaarloog ñi nga xam ne ñoom la ma yàlla booleel ci àdduna ma sàkku leen dimbal ñun nga xam ne ñooy bawal aar di artistes yi nga xam ne ñoo ci diwaanu bawal naka noonu itam ñi nga xam ni ñoo ñoo nekk ay bonne volonté maanaam ñi dimbali ay néew doole rek tax bokk ci bokkaar ñu ne pourquoi pas lan moo tax du ñu gunge sunu waa ji sunu jàmbaar mbokk mi di Serigne Cheikh ñaanal ko ndimbal kaddu bi dañ koy bàyyi ki nga xam si ni moo di président di Cheikh Abdou Nugum Nugum mi nga xam ne moo nekk ci bi di euh, mbokki mbokki ñu leen di nuyu ci turu bawal di groupe bu nga dañuy dox ci social ak tey am fi cas nga xamante si ni dafa triste trop parce que kenn ku ci nekk mën nga koo natt ci sa bopp bi ñu daje nag ñëpp dañoo bëggoon a dajeendoo waaye ku ne xam na ni euh, li ngeen bëgg lépp du mën a antu ndax itam bu fekkente ni ñun mbooloo lañu faaw ñenn ñi ñooy dem ak yu demee ne ak xarxati àdduna yi moo tax ñëpp ñëw waaye kuréel gi waa Bawol Art képp la ñoo ñoo fi teew tey nag bu ñu fi teewee waxuñu ci lenn lu dul lu nga xamante si nii buñ jógee fii ci ñun kenn xamut lu dal kenn xamut lu lay ërve mu dal suñu benn mbokku jullit di suñu frère nga xamne bu ñu gisee photo yi nga xamne avant lii di ko dal noonu la meloon ñun ñëpp dañoo triste wax dëgg yàlla parce que dafa waroon place am di liggéey di napp dem fii ba diwaanu murtani lii dal ko tawat bi ñu wax jalis dal ko wax dëgg yàlla mooy yim amoon yëpp mu def ko ci ba mën naa ni leen bu jeexal doon am ma ne jeexal na ndax asgor saa bu demee ba ñum daan defandool mu toog di leen wax jàngoro rek sës na te ku ne xam na ni joxe met na waaye laaj moo gën a mett ndax ku sañoon ci ñu joxe ngay bokk te lii ko dal met na lool waaye groupe bawal ar nag ñooy jug amuñu nak lu bari ñun suñu jëm bopé waye xéena suñu kaddu sori na ba ñu ñaan képp ko xamante si ni daal yaa ngi nuy bàyyi xel mbaa nga seetaan vidéo bi mbaa nga mbaa bawal ar safla lepp lo loo mën xeebu nu juróom waaye yéemu ñu lu mëna doon ñu jappalé ko suñu frère bi ñun nak numéro yi ñuy joxé doon numéro bawal ar doon numéro président doon numéro kenn ko xamni ci ñun la bokku pour xaliss bi di jaar ci ñun ndax loolu euh, soxaluñu kenn ku ci nekk ci ñun sa yittee bopp suñu borom a la ci dimbali waye li nga xamante si ni moom la laaj ci numéro jëwriñ ji nga xam ne moom la feebar bi dal ci numéro lañ koy dugal képp ku ko ciy dugal boo ko woowee di ko jot loo ko mën a dimbale nga dimbale ko te yàlla rek tax képp ku suivre vidéo yi te mën ko jël en charge itam nga def ko ndaxte doomu aadama la comme ñun woowuñu murit woowuñu tijaan woowuñu xaadir jullit la ñuy woo képp koo xamante ni yaa ngi wax ashadu an laa ilaaha illallaah wa ashadu anna muhammadan rasulullah moo xam nga ne ci biir réew mi ak biti ngi lay tàllal suñu loxo ngir nga dimbali ñu ndax itam kenn ku ci nekk boo xalaatoon ne la dal mbaa dal sa feneen boo bokkal nday ak baay taxawaay bii nga ci am ñu xam ne yéen seen jot mayu leen ko tey it am ngeen yéene ji ñu ne nañ leen teewal yéen ñëpp rek waxal leen leen yéen ñëpp xam nañ ne ngeen gisee wax def ci waye yëkkati sa alal tamit def ci numéro yi nag mi ñu di leen présenter euh, 77 ngay def 850 11 24 boobu moy wif bi 77 850 11 24 moy wif bi 77 euh, tamit 379 43 90 boobu moy orange money bi bala ngeen ko ci duggal tamit bu ngeen ko contacté dina leen ci wax bu fekkante ni orange money bi leg leg day am ak réeróo dana leen wax ngeen def ko ci wif bi wala yu demee noonu mais li ci ëpp solo bop ci solo dal moy li metti na nak itam dem ba say mbokk and ak yow nak gis ngeen suñu baye ge ci ginaaw ku ne xam na ni magum jëmm la te muskalaf la te moom ci jëmmi boppam rek xam nga ni xat-xati at mi ak toogaay bi ak bi rek baaxul ci moom kon bu ànd ak koo xam ne jàpp na ni kookoo ko gën a feebar loolu rek am nattu la ndax kenn ku ci nekk ci ñun bu dajale nag suñu waajur wee am nga yéene jox ko place mu toog mbaa nga am yéene jox ko place mu dem kon bu ànd ak nit koo xamante si ni moo ko mag ci at ngir jaga dem loolu rek triste na kon ñun li ñu mën mooy képp ku suivre vidéo bii mbaa dara àdduna nga xam ne suñu borom li mu teg ab jaam nattu nattu la te ko nangu nga dimbali ñu te yàlla rek tax xeebunu dara yéemunu dara ndax kenn ku ci nekk xamoo fay mujj te dund ko sotteegul lu ne xaj na ca yàlla na ko sa borom teggil ji ñun ñi nga xamante ne ñoo koy siiw suñu borom képp ko amati tawat bi mu ko indee ci ñun ñu saafara ko ci kàttanu suñu message ñëpp di tàllal suñu loxo ñëpp ci turu bawal aar nag lañ góor jigéen mag ak ndaw a ngi ci biir kon asalaamaaleykum wa rahmatulah abdoulaye bisimilah jërëjëf président Cheikh Abdou Nougoum Nougoum yaakaar naa leer na wax na lépp mu nekk koo xam ne itam ko yooyu ndimbal la am ci yéen yaakaar nag moo waral ñu teew fii tey ndax xam nañ ni su ngeen gisee vidéo bi da ngeen ci jàpp tey itam da ci taxaw yàlla xam na ni yàqin gu am gu wér lañ am ni billaahi wallaahi wa tallaahi yéen ñi nga xam ne xam nañ leen bu baax a baax ci ndimbal rek lañ leen xam waaye tamit nag bu leen jàpp ne dañoo xeeb dërëm wala juróom lépp lu ngeen am dugg leen ko ci numéro yooyu li numéro yi su ngeen ci wootee jëm ji ngeen jot di sëñ seex mi nga xam ni mooy nday bi léegi su ngeen ko woowee incha allah rabbi loo xam ne ba ngeen ko ci xam danañ ko leeral xaalis bi ñu ko yónnee moom mi leen moo ko jot kon mbokk yi dañuy ànd teewlu kàddu yi ki nga xam si ni moo di waajuram bu góor ndax itam mbir moo gis ci àdduna day am seede mu ànd ak waajuram bu góor woo xam ni moo koy taxaw di ko gunge foog ñu waxtaan ak moom it tawat bi naka la demee ak moom it yéen lay jànkonteel. yéen bokki jullit yi bokki taaliba yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaare di leen balaaq di leen balaaq di leen xamal ni di leen tàmbali santit ci taxawaay bi ak bi. ndax comme ni ko président waxee noonu la mbir mi demee am na lu mu fagu won waaye jeexna tay yoyo na ndimbal ndax ku ne xamna ni chaque deux jours boo ko seetee cent ak auto ye ngay jël ku ne xamna ni neexut tamal xaliss tayit doonu lo xay ni luñu mëna mën fajj fi saasi la kon dañuy talal loxo bépp julit bépp talibé moy mooy moo sax bépp doomu aadama rek lu ci way man ci jàppale leen jàppale nu mo ngi ñaan mu defal na ko ngir yalla gi mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak Cheikhul Khadim jërëjëf jërëjëf mbokk yi yakarna ñoko ñoo yakarna amut lenn lo xam ne mën nañ ko cee dolliwaat rek moñu taxaju am ci yaakaar rek moñu taxaju tax di leen sant bu baax baax di leen gërëm ci déglu gi tew gi ak gi di ñaan jàmm te di ko sàkku ci yéen tay ñaan itam képp ko xamni ni nga da yooyu dimbal ñoo ci bawal Aar buñ la taxawoo yàlla dimbali ñu ba nga gis ci saafara comme ni ko ñeneen daan defee mbokk mi nga ko lañ leen indi loon sant leen gërëm leen di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen jërëjëf